ay yoon yu naqaree jëfandikoo ak itam ay taataawu ndox di li nga xamante ne bii moom la ñuy jànkoonteel ñoom ñi yëngu ci wàllu dem ak dikk te nekk ci dëkk bu sell bi di Touba bi nawet bi dooree ak léegi. problème bi ñuy am mooy toujours yoon bu ñu jaar la ñu am quoi te maximum voyage yi maximum voyage bi une heure temps la war a nekk mais bu nawet bi jub see dañuy am jafe-jafe dañuy def deux heures de temps de pour ñu agsi terminus xam nga loolu pertement la beneen mooy consommation yi dafay yokk beneen bi mooy li ngay paan day bare. parce que bu yàggul dara oto bi dama dama changé nañu ay lampe changé ay fredo et tout ça bu yàggul dara bon bon bi ñu defee bi ñu defee facture def naa presque trois cent et quelques mil waaw ci loo xam mënoo ko liggéey ci ñaari fan wala une semaine wax dëgg yàlla moom coono coono dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg la ñu jànkoonteel moom. jumtukaayu transport bi ñuy jëfandikoo su wutee itam terewul jafe-jafe bi moom benn la. oto yëpp a paan fi ne nii gisoo léegi ma arrêté léegi sama carnet bi dégg ni mi def dégg nawet moom oto yi benn dootu ci baax ndax euh, yoon yi day am ndox da ngay xuus te saa yoo xuusee man nga am problème mu cardan baa nga am problème fiise lépp a ciy am bu ñu sañoon daal ñu dimbali ci ndox mi saa yi tawee ba sëwet ñu ngàcceel ñu ko ñu mën a jaar ndax tali moom dafa toj tali fi nii yëpp a toj fi nii gis nga tali bi ni mel nii lépp a toj mett na daal fi nii moom mett na lool. benn pexe rek la ñu am mooy di wiiri lu sori ngir mën a wattandiku taataawu ndox yi loolu leen nag di am jeexital ci carburant bi ñuy jëfandikoo. ñu nekk nii ay buntu kër jàmbur lañ jaar ay koñ ak ay koñ lañ jaar si biir parfois da ngay ñëw jaar sa buntu kër jàmbur doomam daw génn nga ferné brusquement te ki laay nekk si oto bi du lay du lay comprendre lu tax nga def loolu lépp jafe-jafe la. bu fekkee bu fekkee quatre quatre jours nga war a daw si euh, carburant bi nga war a jar essence trois jours nga fiy daw. ñoom ñi leen nag di dem ba léeg-léeg sax di yokk paas bi. des fois dañuy yokk seen paas parce que ñu ne li ñuy tegg lay doon. xëy na comme kenn ku nekk la nga yor yaa xam na nga ko yore waaw tey fekk na day da nga jógee fii war jëm fu mel ne Madiana bu fekkoon ne benn yoon la xëy na du metti mais imaginer léegi yaa ngi daw ndox da ngay teggi teggi bi ngay teggi xam naa mooy sori kon donc boo pesee kay ñu yokk passé loolu moo koy waral daal. ay waay jàmmi waay ngir dëggal nag lu ni mel ci garage mécanique yi ñoom ñoom ñi lee di xamle ne ci waxtu wi tembe ñoo ngi ciy gis seen bopp bu baax. yëndaay bi loolu moo ko dal. même carda bi moom lañ war a changé ni loolu moo ko dal ndax dafa dugg sim ndox ndox mi am pax nekk si te bàyyiwu ko xel léegi nag moo waral carda bi am am problème si déboîté moom la ñuy changé ni mooy yëndaay bee ngay gis ne wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey bu baax a baax waaw mi ngi taw feexe ñu ngi sant yàlla bu baax dëkk bu mel ni Touba te màgg gi jéggi dayoo lool ba tax ba lu bari taxaw ne ay farata ci wàllu développement amal nag ay tëralin ci wàllu assainissement ngir saafara jafe-jafe yi doon na lu mënta ñàkk YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi